non dama lay wax man gis na nit war a xam li nga war a def ak loo warta def. c'est encore Mame Goor Diazaka kon kii dof pilis la. ah dee <laughs> dëgg soo ko déglu. ñu jazaakalisé ko. ba ko ñu jazaakalisé ko. plateau bu ñu ko ko teewlu. te ba wax Mame Goor Diazaka mi mënta noppi ngir yàlla. <laughs> suñu président kenn du gis ay xottam. mu ne. suñu président kenn du gis ay xottam. ya Cheikhul Ibrahima Baba Lamine Diassé. waaye mais yéen est-ce que ngeen maam Ngor li muy wax nii. suñu président kenn du gis ay xottam. yow nit nga. ñëpp xam nañ ne matul. wala yow danga def sa bopp mbaam. man de nit kuy wax te li muy wax du ci prête attention ci maam Ngor Diazaka mii laa ko gisee. mag mu réew la mag mu ñàkk teggin la. kii man dama yaakaar ne gémmiñ gi volcan moo ci nekk. suñu président kenn du gis ay xotam. astaghfirullah phénomène bi de manque dogo gis di défendre nit bako dépassé. Ah! ba tay li mën nañ ko woowee bëgg lu neex nit ki bako ñakkal worma luy ndayam. li de lañ wax kat dina wax ba lamb tatam naan bii sama bos. dof bi ngani il est fou mais da koo donn. <laughs> Mame Ngor wax na waxat waxati na comme que mom day wax rek. man de kuma waxone mam Ngor dinañ ko japp loxo ci poste billaay wallaay moo wedd ko ay lii di hmm? mais kon est-ce que xam ngeen ne Mame Goor Diazaka mi dëkk bi ba zéro degré nga ni ma ne Mame Goor Diazaka mi ngi wàcc dëkk bi ba zéro degré waaye lu xew li xew mooy ma ne ana ki jàpp Mame Goor loxo si poos moo ko de i mais kon tee ma koo laaj liiru ba xam bul ma laaj affaire politique yooyu daal non non non non j'aime ki def

dem di teud ay salon ay xalé yi tuuti ñaar dama lay wa d'accord mais man samay jeeg boobu man dama leen respecté. mais est-ce que mamour ya yaa ngi seet yàlla ci li ngay wax ni man moom dinaa def lepp ba mu des fenn. ah kon nañ dem vaar. tout ça dans la désacralisation. xol ko. au calme. <laughs> eh bul fay sama kii bi mais bàyyi nga def waay ah. c'est ku ko bàyyi mu nan day fay lampe yi di lëndëntalu mamour ñun xamé nañ la. maa ko taal bàyyil bàyyil on est désacralisé kon la oto bi yëpp désacralisation désacralisé lii da leen naan juumanoo sant mu ne wele di digle sangu te sitôt dama lay waa d'accord boo waxee rek mu naan xewu ak kanam gi joxal sama kanam man mënatuma la sax xool <laughs> dafa mel ni nag kon am na ku nekk ci ligne bi kon nañ ko dégloo ndoo allo yow maam góor jëzaaka ñu suturaal la suturaal la ba nga xamante ne kenn mësu seenal sa dara. maam Góor Diazaka amooy dara looy def lu du taxaw ci média yi di wax lan mooy massage yow xam nga kay yow yow yow rek yaa xam lan mooy massage maam Góor Diazaka nga xam lan mooy massage maam góor lii du sa numéro 77 634 16 95 du sa numéro maam góor toogal toogal balaa ñuy wax maam góor xeeñ nga xasaw nga sa rasta yi xeeñ ñu toog di la ko suturaaral waxuñu yow nga duggul nga naan massage dugg na fii génn fii te ngaa bañ a wax ñaata yoon nga ñu fekk si Mangor dama nga toog. xuma la mën a sedd waaye dafa mën a duul Mangor déjà que ñu nga xam ne Sénégal kenn nawlawu ko tàkk fay la def carrière am bu gàtt abu ci bëloo sax ko gën a siiw.

te ni rek lañ koy bàyyi. ëppal na xamul bopam muy jaay hypocrite nonu ak rastaam yi di melni ni forêt Zimbabwe bi xam-xam zéro. Eh, astaghfirullah <laughs> man de bu amon ci yon ndogal dag na sa rasta yi bu yàgg. ah tem tem nga dag ko pare sax pousser duñu sonal. ya Cheikhul Ibrahima Baba Lamine jassi <laughs> kon mangu bu nga la lay wax ci nay leer. lay leer lay waxati na lay leer. lay leer assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh taala wa man de lii laa wax maa ngi ni loolu ngeen wax ah, man ñun li nañu mëna wax ndooy jaar mo mo bu ko defee suñu moom mën naa def ñaan wasam si wasaba amin al